dualité gars yi ñoo koy inventé rek gars yi ñoo koy imaginer xam nga jéem nañ ko dugal bi ñu joxee jomaay ni koy ay candidat ñoom de jéem nañu dugal dualité ak nangam ak nangam di wax waaye ba Ousmane Sonko génnee defe naa la ma leen jëkkoon wax de moo ñëw c'est-à-dire euh, d'abord jomaay fay dafay incarner nos valeurs cest à nga xam ni fulla fayda jom ngor yooyu yëpp dafa nekk ci moom waaye ku mel ne Ousmane Sonko tamit euh, moom euh, jëlul pouvoir wala néewul force damay nekk président ba tax mu mën ko ko euh, monter la tête ak yooyu moom <laughs> projet bi moo ko soxal wax na ko kon nag dualité du mën a am lii am kay mooy mottalete mottalikonte c'est-à-dire lamatul moom mu mottali ko wax na ko bu ñu demee ba euh, yàlla tere euh, jàdd nara am ah mu attirer attention ku mel na Diomaye Faye ñun ñëpp aussi loolu mooy suñu rol kon tey euh, dualité mënut a am mukk mukk mukk mukk te vice président bi sax moom dañ ko nomewul wul tandem la ko defe naa ni kooku du nekk législature bi benn ñaareel ba Ousmane ko ah moom toujours c'est lui mais li ma mën a wax rek mooy dina am posture bu mu am ci gouvernement du ma ni poste waaye posture euh, bu mu ci am kon euh, posture mën na exclure poste tamit euh, mooy dina bokk ci ñiy xelal ñiy décider ñiy wax ñiy nekk di indi li war a doxal ndax moom kat programme bi defe naa ni solution beeg yëpp c'est inspiré programme ak yëpp bi ñu ñëwee bu ñu xoolee coalition bi li ñuy dox yëpp ak li ñuy doxal ak li ñuy jaay Sénégalais yëpp ah moom ci moom la jógee Ousmane Sonko kon tey mu liggéey ka ak jomay Faye ak ñeneen kon tey loolu bu posture bi mu ci am wala posture am xam nga post moom du dara waaye nit ki da nga am posture fexe ba taxaw ci réew mi ndox réew mi dox boobu nag ku nekk am nga ci rôle ba ci ñun ñii ba ci yéen ñooñu ba ci journaliste yi ba ci secteur d' activité yëpp defe naa c' tout il faut que ñëpp jàpp pour lépp mbir mi dox parce que bu doxalee kat ñëpp la doxal